asalaamualeykum mbokk yi asalaamaaleykum asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu sante yàlla jul si yoon tam tëdd sa sam ñu leen di nuyu di ñëw ak yéen tey si wàllu gént gàncax ñu am lu ñeen si leeral tuuti xam nga garab moom si gént si misaal garab nit lay wan nit nit lay wane saa yu géntee garab rek nit lay wan euh, soo géntee nag di ko ir ses ngay jël si doomi garab yi alal joo jot nit kooku lañ lay woon moom da bàyyi xel la le bois sec ak le bois d'œuvre muy bois de d'œuvre wala bois de chauffage lu mu si mën a doon muy matt mi ngay xam ne bant yi nga xam ne dañ koy defar ay meuble wala bant yi nga xam ne dañ koy toggee bu mu si a doon rek si gént baaxul hypocrisie la bu lay woon euh, gént nag di jëmbat ay garab lu baax la c'est obtenir des honneurs di nga di nga am ay gént nag garab yaa roseau boo génnee le roseau roseau c'est des hommes nobles moom la ñu woon gént grenadier grenade grenadier jigéen la ñu soo géntee le pommier c'est le métier sa métier la ñu wala sa salaire mooy pom wala pommier nga gént ko gént des fruits jaunes. fruit yu mboq feebar lañ lay woon tawat gént nag fruit yu vert lu baax la ay gain la alal juy dugg lañ woon loolu baax na xam raisin si gént c'est un soutien matériel c'est une bonne nouvelle donc xibaar bu baax la wala am ndimbal luñ lay jox sauf mu nekk raisin bu noir baaxul c'est des soucis raisin bu ñuul bi boo ko yëntee baaxul mais beneen bu mën a doon si gént baax na olive bénédiction la fertilité argent si tu en reçois boo géntee ñu jox olive moo xam diw bi la wala fruit bi mën a doon lu baax la boo doon ñaan nangu na boo doon dangay ngay sëy am jafe-jafe yàlla na la si doom bu doon alal nga ñàkk da nga ko am incha allah rabbi loolu lu mat a bàyyi bàyyi xel la le figuier si gént souci la ak regret l'amande sèche ou fraîche richesse dissimulée soo jëlee xooxu doom ba sa biir nga géntu gis ko c'est des c'est un trésor caché alal ju laaxu la gerte gerte c'est des biens licites alal ju lew la mooy gerte si gént yi nga ne am fruit du ñu ay doom c'est des hommes peu utiles nit exemple tel que euh, le cypress. le ou bien la merde. le cyprès ou la merde. soo dee gént yàlla gént am ay c'est des hommes peu utiles nit ku bariwul bariwul njariñ mu ngi lay waxoon euh, garab nag ki xetam neex si gént c'est des hommes nobles de bonne réputation la yewoon mais muy nit ñu baax ñu am ay woy woy wu rafet garab nag bu fekkee dafa am odeur bu bu naqari dañ lay woon ay hommes pervers ñoo xamante ni baaxuñu jubuñu le blé céréale bi ñu wax bu fekkee bu bees bi la lu baax la moo gën doom bu wow bi si orge bi ñuy orge c'est un bon signe mais son fa moom c'est des gains abondants et disponibles lu alal la ju xante terme. daanaka teew mburu nag si c'est une vie paisible Une vie paisible boo lekkee si mburu mi nag ah lu baax la kooku moom c'est de l'argent buy dugg xaalis buy dugg alal la kooku lu ñoo si bàyyi xel dugub nak ak fenugrec bi awo yi jël di ko ruyee soo ko gisee si c'est de l'argent mal acquis alal jiw xam fa ko mu jógee baaxul la loolu ñu xel les fèves fatigue le coono ak xalaat souci la lay jox ci gént les légumineuses muy ñebbe muy petit pois muy lentille ak haricot vert nga gis ko si souvent souvent baaxul ay souci la soo ko gisee gént rek tout ou tard dañ lay ay ay jafe-jafe ay souci donc ko doon tuddee c'est des joo xam ne lewul te boo ko lekkee tôt ou tard dañ jël jafe-jafe baaxul nit waxtaan yàlla dafay woon toujours mais doo gis euh, nga gis nag ay meññeef bu rafet wala nga ne si foo xam ne gàncax gi daf la wër ba rafet ba dee kooku lu baax la bu doon da ngay ñaan yàlla na nangu si ñaan di accepter te soble nag ak poivron laaj moom si gént souci la ak tristesse baaxul basilic muy ngun-ngun ak poobar si gént bu fekkee dañ leen a gént ñu nekk si garab gi taxaloo garab gi lu baax la alal juy ñëw la mais boo leen gént ñu séparé ak garab gi nga gis ko bi mu tege fee loolu baaxul baaxul hmm? c'est une perte de bien la alal ju gént si yow lii dañ la ñu doon si gént gàncax daañu ñëwaat si gént si beneen vidéo si yeneen mbir jërëjëf